ah waxtaan bi kum njiiti réew bu Sénégal Basiru Jomaay Fay fa soppeeku woon ab imaam ak ab sëriñ ci tabaski ren gi ndax kàddu ya mu yëkkati ginnaaw bu mu jullee ba noppi ca grande mosquée bu Ndakaaru Sud Quotidien fa duppee kàddu ya ab xutba Direct News yéene kaay ne faa koy tuddee sëriñ Basiru Jomaay Fay ndax kàddu xam-xam kàddu kilifa kàddu yu am solo la wax yow seetal faxoo sénégalais yi ci ak dimbalante fexe ba réewum Sénégal ñoŋ fexe ba Sénégal jub fexe ba Sénégal xam ak juboo fa ca yokk ne état bi nag fay def kémb kàttanam ngir dimbale néew di doole yi fa jeexal kàddoom ne sénégalais yéen ñëpp maa ngi leen di baaxalu àq mboolem koo xam ne faa la tooñ te képp ku ma tooñ baal naa la àq si du quotidien na ko bala moo daaneel fa xam ay tomb yu bëri yoo xam ne wax na ko moom njiit réew mi bokk na ca fa xam le ne ñoom état bi fa ñoo jël engagement ngir fexe ba dund gi wàññeeku fexe tamit ba jafe-jafe ci fànn yu bëri ñu daal di koy saafara si du quotidien ne président kay fa xett boobaale maanaam fa julli tabaski ba pare génn def bilan am ci ñetti weer yi ñu ko fal liñ jot a liggéey ci réew mi donte fa wax sénégalais yi waxtaan mënta ñàkk andi coppite lépp ngur ñoŋal suñ dundin ak seen nekkin fa wax na bañ koy fal nag fa fekk réew mi ci guuta jafe-jafe yu métti terewul fa ñoo xar seen tànk tubéy ñoom état bi ngir yombalal sénégalais yi seen ak te fa xam yaakaar ne ëllëg réew mi fay soppeeku doy na ca misaal nee na dogal yi ñu jël ci mbiru transport yi oto yi biñ ñu ne leen wàññi ci paas bu jàppandal yomb neex ba tax askan wi fa ñoo rafetlu taxawaayu état bi ci fànn bi ni mel fa caa yokk moom président Bassirou Diomaye Faye wax ak mbégteem ci bi biñ tàmbalee sulli fii ci Sénégal waaye fa wax na sénégalais fay dalal seen xel pétrole bi yorin wu sell lañ ciy xamal te fa ñuy fexe ba sénégalais yi gis njëriñu pétrole bi <laughs> leer la laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy na tabaski ren ji ca Médina Gounass nekk ca département bu Vélingara diwaanu Kolda foofa tabaski bu tàng jir moo fa xamoon laas yéen a kaay ne Médina Gounass la fa xamoon du jàmm tabaski goo xam ne deret fa faa tuuru ñaari doomu aadama fañ leen faa rey ci xeexoo jàppante bu amoon diggante ñaari këru kilifa diine ya fa nekk muy Cerno Amadou Tidiane Ba ay taalibeem ak taalibe Cerno Muniru Balde ñoo doon jàppante xeex bu ko gën a métti l'observateur ne yëf yi kay fa jéggi dayo ndax xam na oto yu bëri fañ leen a tojate rajaxaleen bañ mokkuru mbax xam ay magasin place yoo xam ne fañ koo taxal ba mu jeex tàkk ñu bëri am ca ay gaañu-gaañu waaye li ci gën a garaaw mooy fa xam benn marchand ambulant boo xam ne buntu place ko fekk fañ koo tiire balu fetal tëf mu daanu sedd guy faatu ñàkk bakkanam armée bi sol Fall Darsi ñoom lañ mujj xoo ñoo fa andi jàmm ni ko doon làmbaay fay gën a ñaaw le quotidien yéen a kaay ne yëf yi kay fa ñaaw ba noppi deret ju wala ngaan bakkan bu ci julli tabaski ca Medina Gunaas ni lii fa garaaw moo tax Medina Gunaas ñoom nekkuñu ci ab fedde fitna ci lañ nekkoon ndax benn doomu aadama fañ ko faa rey laas yéen a kaay man de faa foog ne ñaar lañ wax ne moo fa dee réew mi yéen a kaay ko déedéet du ñaar de benn doomu aadama nga Medina Gunaas fa xam ñaari këru kilifa diine yu fa xam yoo xam ne bokkuñ waa kër Cerno Muniru Balde ak seeni taalibe ak waa kër Cerno Amadou Tidiane Ba ak seeni taalibe ñoom ñaari kër yooyu nag du ñuy laale yàgg nañ ci ay fitna xeexoo ak rayante atum 2007 julik tabaski ga fitna ju ni mel xamoon na fa 2019 jàppante amoon na fa fitna ca dëkk ba ci ay coowal armel Le Soleil yéen a kaay ne ànd ak fitna ji yëpp nag ñaaru këru kilifa diine yooyu fa ñoo bokk ay mbokk lañ ci deret waaye daal seen dëkkin moom ak seen nekkin neexut jàmm jafa am fi mu toll ni sax dee ko dégg rek de na jugaat fa nag moo tax jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi Jean Baptiste Tine fa ànd ak délégation mbooloo mu bari ci nguurug Sénégal gi fañoo ñoo dem Medina Gunaas bañ xeggee fañoo dajee waxtaan ak xalifa ba car Cerno Amadou Tidiane Ba bi nga xam ne moom otoom ba fañ koo tojate ba mokk rumbax attaqué ko bi ñu waxtaan moom ba pare fa ñoo dem waxtaan ak Cerno Muniru Balde ak waa këram lépp ngir jàmm doxaat seen diggante donte waxtaan fañ koy wéyal pare gudde leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne imaamu Sénégal yi ku nekk xamal na xutba ci kanam mbooloo ma Sud Quotidien fa cee tànn ñenn xutba imaam ba ca ndar ak imaam ba ca jurbel sëriñ abib kanji moom fa sàkku sullik pétrole gi xam ak gaz bi ci réew mi mu xam ci jàmm ak salaam ba askan wi mën koo jëriñoo imaam ba ca séeju moom fay sàkku ñu door liggéey ba ndax ndaw ña mën a am xëy suqali seen diwaan ba naka noona yeneen këru diine yi ak diwaan yépp seeni imaam fa ñoo ñëw ci njëriñu bés bi di tabaski nañ koy defee ak la ca am imaam maxtaar kanté ne tabaski nag ñu bëri fa ñoo foog ne lekkam xar yàpp rek la déedéet waaye fañ cee war a jàngatee histoire bi ci dox diggante suñu maam ibrahima ak suñu maam ismaila ci jëfee ndigal ak nangul sa waajur mu nangu ba wax ñu ko moom wal fajiri yéen a kaay mooy ne njiit réew bu Sénégal Bassirou Diomaye Faye fay dem tey ci àllarba ji ca réewum France mu nekk tukkib nemmeeku bu njëkk bu mu amal bu génn Afrique bi mu nekkee président ak léegi yéen kaay bi ne xam ndaje mu mag nag fa dem waaye bu fa noppee fay dem xañandoo ak njiit réew bu France Macron jëflante nag diggante Sénégal ak France jëflante bu yàgg la dafa yàggara tax waaye invitation woolu bi Sonko woolu woon Mélenchon nga xam ne noonu Macron la fii Sénégal est-ce du ko xajamal tàggat yaram Portugal fa mbuqi Tchèque ñaari bal ci benn Turquie fa mbuqi Géorgie ñetti bal ci benn France sagaru victoire la am munuñoo dugal fañ leen a dugalal dara defuñ ko fa ngeen déggee ci ne maa ngi ca euro 2024 ba tey nag Allemagne fa nar a rayati Hongrie Écosse mooy laale ak Suisse ñoom ñaar kuñ ci mbuqi xay xenu la fa ngay fori new record a kaay moo ko xamal la mu ñu xamal moom Sud Quotidien mooy naqar ak tiis bi daanu ci mboolem syndicat liggéeykat yi ci Sénégal rawatina yu UNSAS ndax seen njiit la woon Mademba Sock fa génn àdduna ca Paris France ginnaaw jàngoro ju ko tëral Sud Quotidien ne syndicaliste politiciens moom lu rafet ba ci yéen auditeurs rajo Alfayda FM ngeen baal ma xàq ci njuum tey wax ndax wax fa jafe ginnaaw bu ma leen baalee xàq lépp ci tabaski gii di leen wax nag déwénati taqabbal allahu lana wa lakum aaddahu allahu alayna bil yumni wal baraka wa kullu aamin wa antum bi alf xayr